ay nit lañu dee gi dafa bari feebar bi dafa fi nekk ku ko gëm yaa xam ku ko gëmul yaa xam mais am na de qu'on la vérité. lu tëj Ndakaaru tëj Thiès Louga ndara si topp du fi bàyyi ndar. fa tax ñu war a tëj ndar la tax ñu tëj Dakar tëj Thiès bu amee ndar daan tëj lu dul ndar daan ko tëj. ñu liggéey ci waa tourisme bi métti na torop métti na torop waaye daal moom ñu wax dëgg yàlla ñun moom ñun ñu ngi suñu gannaaw ministre du tourisme. et des transports aériens bi nga xam moom wax dëgg yàlla fàttewuñu xam nga léegi tu mu noonu de mais daanu gën a lottu quoi da boo xool dëkk bi instant bi nii wax dëgg moo neex yàlla dafa metti dafa metti nit ñaa ngi jéem a xool fu nu daw jëm pour dabu sunu pour dabu sunu bakkan ndax dëkk bi métti na métti boo xamante nii lii bu fi amaatee moom wax dëgg yàlla daanu sonn mais nag lenn dafa am état kenn mënut a xeex ak moom ah lenn ñu jéem a ñoom tamit ñu jéem a gëstu askan bi ñu jéem a gëstu askan bi. ak ndimbal yi ñuy jël di ko joxe ñuy xam fu ñu koy teg xam ñu koy jox bu baax fii da ngay jox nit ki ndimbal fu mu jox ak ñi koy yàll ñi ko yàlloo mais seen liste la ñu yor seen mbokk kese la ñuy woo jox leen ko am ñoo xam duñ ci gis seen bopp xam nga dañ leen di jox ndimbal ndimbal loolu ñu leen jox am na ñu ko yàlloo mais duñ leen ko jox dañu mel ne ku koy jaay ndax seen ay mbokk kese ñi leen di jay kese lañ koy jox te loolu du dëgg du yoon man nag nangu naa nag nangu naa nag tawat bu amee ci dëkk nangu naa ñeneen ñu xool neneen nuñ ko neneen nuñ ko nuñ ko saafaral comme nii sax dëgg la lii mënut a ñàkk foofu mu am waaye nan nu geestu nan nu geestu ndax lii nii moom ah loo ci mën boo si ànd boo si àndul dana am boo boo si ànd ak si àndul tamit dana am mënoo ci dara ndax jàmm ni tamit wax dong la nu mën état ki mënut a xeex ak moom. te du yoon sax xam nga ñu ñuy xeexal état sax nanu xool nu nu naxantee rek ñu jàppalante ñu dimbalante waaw nanu jàpp moom kay moom nanu xaar suñu wàll amaana léegi léegi nii sa wala suba sa xam nga loolu mo loolu am du boole ñu sonn nan na quoi nanu jàppale nanu jàppale jeunesse yi ñu liggéey nanu jàppale yii ñuy def yëpp xoolal amul sens yii yëpp fii lay yem yëpp fii lañ koy baax nañu dimbali ndax ñu sonn nanu sonn nanu torop sonn nanu waaw sonn nañu torop ndax lu ne jëm nañ ci dugg mais suñu ngor moo nu mayetul yenn yi moo tax la ñemew ñu sàcc ñu fen ñemew noo jaay yamba waaw ñemewu ñu agressé ndax suñu ngor ndax ay doomu gor lañu ay doomu gor lañu nañu dimbali li naan njëriñ bu fàttali ko soxor dëgg la njëriñ bu fàttali ko soxor am ñoo dëgg ñu ngi fii si biir kër yi ay doomu kilifa lañu mais bul xol dañu sonn dañu sonn waaw man loolu amoon lu. njiitu réew mu non non day tey dakaar ak Thiès. njiitu réew moom njiitu réew rek la la mën a doon waaw moom mooy xool lu ko lu ko soob ak lu mu dogal mu def ka itam li mu dogal noonu itam boo xoolee yéeme na de ndax nit ñi instant yi nii sénégalais nekk na dëkk boo xamante ni métti na métti boo xamante ni tey jii boo tëjee nit ñi loo leen di jox ñuy lekk loo leen jox ñuy naan am na ñoo xamante ni yaakaaru yaakaaruñu salaire tey jii taaba taaba la ñu yaakaar ñi yaakaar si chantier yi ñii yaakaar ci leneen tey jii mais amaana ka nee na day tëj mais bu fekkee daf koy dem ba tëj na tëj na ko tëj si loo xamante ni ci lu wóor loo xamante ci lu wóor ndax nit ñi ndax daanu am lu lekk wala daanu am lu naan. ndax moom loolu moom kenn mënu si wax dara ndax allahu axlam yàlla daal moo xam waaw xamoo lu yàlla di def daal waaw ndax moom tey jii mooy sunu njiitu réew lu mu def moom lañu war a accepté waaw mais nag wax dëgg yàlla ñi ngi dem ak ñi ngi dikk nii mais itam ñu fagaru feebar bi dëgg la. ñun mosuñu gis ku corona wala affaire dama noonu mais feebar bi lu am la lu am la mais nan fagaru nan fagaru ñun nag wax dëgg yàlla ñun population Saint-Louis ñun yaakaaruñu si salaire yaakaaruñu ci dara ndax dañuy taaba taaba di dem ak di dellu si waaw di dem ak di dellu si waaw di dem ak di dellu si nan nu gestu xool nu waaw maa ngi nii jàmmalaay laa jóge nuuru ba naaw mooy loolu tey jii ñun bu nu tëjee fu nu jëm